la bëgg arbitre sifflé na Gora Sock a ngi ñëw sànni na li fa Tyson 2 defoon Tyson 2 Gora Sock Gora Sock dóor na Tyson 2 jël Gora Sock Tyson 2 Gora Sock Tyson 2 attention ngi raam est diisul est diisul ñaata appui 3 appui 4 appui lamb ji jeex na daan na ko waaw waaw mobilité mobilité ko daanee 4 appui am am wala amul amul arbitre yi nee nañu arbitre nee na dañuy bëriwaat defoon arbitre sifflé na Gora Sock day ñëwaati Gora que dana ñëwaati est que dana am fit ñëwaati Gora Sock Tyson dafa war xam ne luur la daw nañu jël Gora Sock ñu ngi koy plaqué day rëpp rëppati na trois appuis trois appuis Gora Sock Sock dafa war a xam ne luur la Gora Sock dóoran na Gora Sock Tyson na koo jël Tyson 2 jël na Gora Sock Gora Sock rëpp Tyson ñu ngi ci suuf encore uppercut Tyson 2 Gora Sock ñu ngi xeex Gora Sock Tyson 2 lamb ji tax la suufal tan quoi Tyson 2 Gora Sock Tyson 2 jël na ko mu ngi koy plaqué daan na ko Gora Sock daan na Tyson 2 Gora Sock daan na Tyson 2. naa ne dee ma ak moom. waaw bëree moom noonu bëree moom. deewoo rek kii boo deewul mënoo ko daan. non non. ah, ah? may mbapat ak moom. mais góor est-ce que est-ce que yoon la nga nga a may temps d'arrêt man mënu ko may temps d'arrêt